ko kaawoo kaawo fi Youssou Ndour bu Balla Gaye daan fi bébé julde Tyson 2 mi ngi noonu bi fi mujjil góor a soog la bëreel daan ko bëreek ak ki nga xam ni mooy garga numéro 2 daan ko combat mu mujj Franc moo ko fi daan fi ci arène nationale la woon diggante Tyson 2 Thiatou Yoff nee naa la benn adversaire moo leen boole di bëggee caat moo nekk ci caméra bi tey ak Dj Da lu ngeen fi gis mu rafet rek ci image ñoom ñaar ñoo ko jël Babacar nekk ci montoor bi di nuyu nguy faama directrice commerciale directeur programme Khadim Soumaré Mamadou Seck DG bu RTT TV ñoo ngi lay bëggee di la siyaar Soña bege naa la sama xarit sama doom ndey borom yëngal gësëm di jëmbës maa ngi lay bëggee di du nuyu waa marché central Thiès yuusu Hadj Youssou Seck El Hadj Kaay. sama nijaay. waaw waaw maa ngi <laughs> naa ko. déedéet waay loolu xulóo nañ. déedéet lay demee. caatu Yoff Tyson 2. waaw caatu Yoff mi ngi noonu. jiital li nga xamante ne mooy tànk droit waaye ki nga xamante ne nii mooy Tyson 2 jiital tànk goos ñii léewtoo waaye booba tey dara amut caatu Yoff moo ngeem moo xonq li ki nga xamante ne mooy Tyson de ngemboo ngemb lu bula li mais alaaji Moustapha waaw ñoom ñaar ñuy ñaar ñaari ndaanaa ni bërëkat mais alaaji Moustapha waaye de alaaji Moustapha moom moom damay kurus <laughs> damay kurus <laughs> alaaji Youssou la ñoom ñaar di ñaari ndaanaanu bërëkat mais li ma jaaxal ñoom ñaar xeex lañ gën a ñoom ñaar seen i combat boo xoolee ñoom ñëpp dañoo bëri ay kaawoo waa dañoo bëri ay kaawoo ndax boo xoolee ay xeexkat lan boo xoolee caatu yoof gaaw na waaye ki nga xamante mooy Tyson 2 bu liiree combat mën na cee génn waaw arbitre bi attewaat na leen ndax da leen dañoo deful dara dañuy léewtoo rek uh-huh. xam naa nag bu ñëwaatee moom benn cong lay doon nag Kara li ma la mën a wax muy combat bu am solo Alaaji Yuusu moo wax loolu sama nijaay bëgg naa ko di nuyu waa marché central gépp ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax Eh, di nga xamante ne nii nag di félicité ki nga xamante ne mooy Pambay di encouragé nga xamante ne nii mooy Tiribo ndaanaan la wax dëgg yàlla mbër na nga liggéey waaye ñoom ñaan ñi ngi léewtoo caatu yoof nag mi ngi jéem a agressé partout tout mooy li ma la wax rek kara ñaan ñii bu ñu jàppante benn yoon rek mu jeex. yaakaar nga ni bu ñu xeexee kaw mën na cee am. mën na cee am mais bu ñu bu ñu jaxasoo rek mu jeex. mii bëre ba mii xeex ba daal. ñoom ñaar di ndaanaanu bëre kat mën a xeex mën muy diggante Caatu Yoff Tyson 2 di combat bu neex di combat amateur di combat boo xam ne bi mu taxawee ñu bari ne nañ Sidi nan la def ba taxawal kombaa bi waaw waaw neexut a neexut a taxawal nag ndax boo xoolee combat bi promoteur Dakar yi wax dëgg yàlla euh, dox nañ ci ba sonn waaye ki nga xamante ne mooy Sidi Diakhaté lu mu bëgg war na koo mën a yomb na wax dëgg yàlla lii defal na ko waa Kees defal na ko waa Mbour defal na ko ñi nga xamante nii ñoo nekk Kaolack Diourbel kon bu ñëwee fii di ko def arène nationale lu fi bëgg war na koo yomb loo tax lamb ji yomb ko waaw xam nga waa Dakar dañ ni Sidi na leen jox seen wàll waaw parce que dem na Mbour dem na Kaolack dem na Ziguinchor dem na Tamba dem na Diourbel waa dakaar na doon laaj seen wàll tey jox na leen seen wàll indi leen caatu yëf Tyson 2 léegi daal li ñuy wax daal mooy bu ñu waree ba pare na Sidi dellusiwaat dëkkam nag waa dëkkam namm nan ko waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar bis aéroport bi <laughs> te Alaaji Yuusu mi ngi noonu day jël avertissement moom Caatu Yoff Tyson 2 day jël avertissement arbitre bi soufflé waat na génn seen diggante diggante Caatu Yoff Tyson 2 Caatu Yoff jiital pied droite Tyson 2 jiital pied gauche kii nekk Yoff kii nekk Tay Singa Tay Singa Pikine ndeysaan boo nee Tay Singa sa xel nekk ci ki nga xamante mooy Doudou Sané waaye sa xel dina nekk ci ki nga xamante ne mooy Eumeu seen daj dëpp gi waaye ki nga xamante ne mooy Caatu Yoff xale la boo xamante ne daa nekk ci yoon Tyson nag lii mu def mooy wàllam ñëw dëggal boppam téye pied taxaw di léewtoo di ko déglu ba xam lu muy yëngatu jeexam mooy caatu yof nag Tyson na ko jiitu tuuti ci làmb moom xale la day ñëw waaye nag ñëw mi na ko teg ci yoon rek ndax ki muy bëreel expérience la am. mais jox na ko cër. waa cër bi baax na waaw cër bi baax na ci lool cër bi baax na ci lool ndax làmb da ngay jox sa borom cër waaw. muy combat bu am solo diggante caatu yof Tyson 2 xeexaguñ bëreguñ ñoom ñaar ñuy joxante cër rek di derbi de lébu la Tyson 2 jóge Ndaayaan ñëw ëmb Pikine caatu Yoff jóge yoof ñaari lébu lañ diggante Thiatou Yoff Tyson 2 derby de Lébu li muy am daa mel ni bëriwut ci làmb de waaw waaw muy am bëriwut waaye boo xoolee tey ji ñi nga xamante ne mooy Thiatou Yoff ak Tyson niñ taxawee daa soree ndax seen tànk danoo jàkkaarloo mooy li ma wax kii daa jiital ni jor kii jiital li nga xamante ne mooy góos dañuy dox nag daw ci latéral di ñëw di ñu fekk si waaye ki nga xamante ne nii mooy li ma lay wax rek lépp lu ñu def rek mooy bu nu jaxasoo rek laa ji day jeex ndax ku ci nekk liin nga sa morom xam ne action boo xamante ne boo ko def xeex ñoom ñaar daw nañ dajee xeex Caatu Yoff Tyson jël na ko Tyson 2 jël na ko da koy daan wala lu xew lu xew lu xew lu xew waaw Tyson 2 daan na Caatu Yoff Tyson daan na la benn jàppante la bu jeex Tyson 2 Tyson 2 daan na ko ee eh, daan na ko oh loolu rafet na oh, loolu rafet na ñoom ñaar Tyson 2 Thiatou Yoff mi ngi noonu